كن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به أهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام وما جلالة نزلت في مدعي السور شمس النهار وما الشمس القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفتي من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفظي بالفاروق صاحبي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 fu ngeen mënta nekk ci gox yu fasanti koy ci Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waye bala bobu ñu nuyu baax ki nga xamne moy mooy Serigne Babacar Sy ibnu muhammadin al Mansour ñaanal ko yàlla lépp lo xamne ay nal la ak sumbu mu sumbal ko mamam Cheikh seyd al Hadji malik yàlla na yàlla def mu yegg ci mu yegg ci am ci barki sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam bokk yi ne ku gis natal bi nga xamne ci lañu ne nga gis ci ndeysaan bërëb bu yànj bi nga xamne ci lañu nek ngeen xamne ñu ci juma ji nga xamne ne Serigne Babacar Sy ibnu muhammadin al Mansour ànd ko ak njabootu mam Cheikh seyd al Hadji malik yeb ñoko tabaxal sen mam Cheikh sidi Hadji malik waye tam ñu jébbal ko yàlla suñu borom subhanahu wa taala ndax itam jakk ak juma ku ne xam ne yëfu yàlla suñu borom la subhanahu wa taala kon nak ëttu mawdo dina len ko ma sha allah dafa gam si itam ci benen anam ndax gis ngeen li nga xamne moy remise de clé yi nga xamne bañ xëyee ci suba ba tay ci lañu nek nekk mawdo topal na len ko ñu jël caabi juma ji ànd ak jamaatu nur jébbal ko ki nga xamne moy Serigne Serigne baba kassi ibnu ibn masu mu nek mbekté gu yaatu bo xamne itam taalibe yi dund nañ ko fi tey ci ma sha allah ñi nga xam na ne ñoo ñu topp ci ëttu Maodo TV kontaan nañu gàmm gi nag ci njëlbeen gi ba ci njeexte li ëttu Maodo TV dina leen ko toppal fii ci Tiwaawan incha allahu taala en direct ku gis nag macha allah mbooloo mu yàññi mi nga xam ne tey Tiwaawan foo sànni mbatt mu tak li ko waral nag mooy maam Cheikh Seydi Hadji mi nga xam ne daf ñu nëbb boppam ba ndeysaan ba ñun kenn xamu ko wala boog suñu suñ ko xamee asut la mu jël yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam joxoñ ñu ko ñu roy leen kii kii mooy ku baax kii mooy yonent mu jël burdu itam nga xamne ki nga xamne moko moko talif moy mohammed taalif mënon na jël nuuniya mënon na jël xilaab zahab mënon na jël taysir ndax boo ci jël rek lim ci tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ay ngëneel kenn xamu nu mu toll waaye ci yaatalam ak ci bëgg xam-xamam ak itam ci li nga xam ne mooy feeñal nit ku baax feeñal borom xam ak xam-xam mu ko ñore moo tax mu jël li euh, bi nga xam ne téere bi nga xam ne Mouhamed Bouchayri moo ko naal mu wane ko ndeysaan nit ñi doon ko jàpp doon ko jàng muy fukki buntu nga xam ne jàng nañ ko tey nag ñu tuddee ko bés noppalu waaye du noppalu euh, yi nga xam ne mooy muxaddam yi nga xam ne moom la tasoon ci gox yu fasantikoo yi am nañ ñenn ñoo xam ne nee nañu euh, masàllah li nga xam ne mooy ay ay ay ay ay maanaam bokk li nga xam ne moo leen doon lënt ci seen wàllu diine ci seen wàllu xam-xam masala yooyu la maam Cheikh Seydi Hadji Malick doon ko jël di leen ko tojal macha di leen ko jàngal ci bés bi nga xam ne lañ dubee bésu noppalu macha allahu taala Cheikh Seydi Hadji Malick nag nee nañu mu ngi gane àddina en 1855 macha allah moom maam Cheikh Seydi Hadji Malick papam di maam Ousmane si di maam Ousmane macha allah ki nga xam ne itam mooy waajuram bu jigéen di maam Fawade bi am nañu wax beneen date waaye bii moo a siiw nga xam ne moom maam Cheikh Seydi Hadji malik am na ko fii ci Tiwaawoon itam ki nga xam ne itam moo ko fi dalaloon am na am na ki nga xam ne moo ko fi dalaloon koo xam ne ñu ngi koy tuddee ki nga xam ne euh, mooy euh, nit ku baax macha allah ca sell moom moo ko dalaloon fii nga xam ne mooy euh, mooy Tiwaawoon mom maam Cheikh Seydi Hadji Malick macha allahu taala ki nga xam ne mooy biran Gueye macha allah nee nañu moo ko dalaloon fii ci Tiwaawoon li ko waral mooy ci wàllu xam-xam. macha allah ci xam-xamam ci bëggoon mu jàngal li nga xam ne mooy taalibe yi mu dalal ko fi ci Tiwaawoon noonu itam demoon na ci yeneen gox ba ci Murtani gëstu xam-xam fu ne maam Cheikh Seydi Hadji Malick dem na fa ngir am xam-xam moom maam Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anu ëttu Maodo nag ni mu leen ko defalee ci li nga xam ne mooy programme yi nga xam ne moo concerné li nga xam ne mooy xadara bi ñëw na tey fii ci Tiwaawoon Tiwaawan nag li ñu fi indi mooy gàmm incha allah ci njëlbeen gi gis ngeen remise de clé yi gis ngeen burdu yi lépp ànd nañ ko ak yéen suba nag mooy bésu gàmm gi ci cérémonie officielle bi ak li ci am ci wàllu reportage ci wàllu interview ci wàllu dayre yi lépp dinañ leen ko toppal ci ëttu Maodo TV incha allah taala jërë ngeen jëf kon nag ngeen woy di abonné di partagé incha allahu taala suba ci beneen programme incha allah ci ëttu Maodo TV asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به أهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام وما جلالة نزلت في مدعي الصور شمس النهار وما الشمس القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفتي من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفظي بالفاروق صاحبي من قوله الفضل بأحكامه